cinquante mille la ren aywa jege la fii la ama ah, jege si tuuti baax na mi ngi noonu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi fii nga xam ne moom mooy Arène Nationale di suivre li nga xam ne moom mooy présentation ñaari mbëri diggante Fils de Ama ak ki nga xam ne moom moo di Thiatou Mokkal nekk nag combat boo xam ne combat la ci biir combat yi ah macha allah donc Thiatou Mokkal comme mooy Fils Ama moo njëkk a ñëw wala Thiatou Mokkal Fils Ama yaa njëkk a ñëw Fils Ama nuyu naa la. ñu ngi lay fay. Hmm, ñu bàyyi la nga nuyoo sa ak gaay yi ma ànd ak yëpp waaw. ok Sarr Mokkal nuyu naa la. maa lay fay ma jàpp. Mhm. dina ma sant yàlla julli sant bi sant sama ñaari waajur di leen nuyu yéen ma yéen ñëpp ñu ma fekk. Mhm. di nuyu sama koñ booy mandal. am mhm. na seen fay maa leen nuyu baax a baax a baax. ok euh, fils de Ama la moo la boole caatu Mokkal mi la wit mi. non dara boolewu ma ak moom boobu xam na sob rek moo ko si dugal de mais du ma ak moom sax daa am ah. fu ma teg sama bët fu sori. ludul dul pour booy yi nii. Mm-hmm. Saar moo ko dégg na wax nee na soob rek moo la si boole mais lamb ji du yaa moom. waaw loolu mën a wax mais moom jàmbaar may jàmbaar te ñaar jàmbaar ñoo mën daje quoi. Mm-hmm. voilà ok lan lañ mën a xaar le huit sa diggante ki nga xam ne moom mooy euh, fils sa Ama. le huit lépp dina am bëre xeex incha allah rabbi yàlla may ma doon sa dugub yi ma dem ñibbi. xeex ak moom moom mii nga xeex ak moom. bu lu mu indi ma indi lu raw. ah waaw loolu demee. fils sa Ama dégg wax nee na xeex bëre. kii laalo bu ñu ko conseillé na ko xeex sax moom du def loolu noonu ci boppam du xeex du xeex de. la moo tax loolu foo teg maa ko dàq sañ-sañ la man maa ko dàq foofu. Mhm. kon kon su ma la déggee le huit moom bu xeexee dinga nga xeex bu xeexul di nga xeex. bu xeexee daanu bu bëree daanu. waaw dégg nga boo xeexee daanu boo bëree daanu. gëm-gëmam lay wax rek li nekk si moom fii moom gëm-gëmam lay loo lay wax rek nee na moo mën moom doole ah. le huit yàggatul ni bi ñëw soob na mais ce que moo la mën moo la ko doole. loolu la jàpp moom. mais yow yow loo jàpp daan ndaw nag loo jàpp yow yow loo jàpp. kii su ma mu jeex. fils de Ama nee na jàpp ne yaa mën yaa ëpp doole te bu la jàppee lamb ji. bëreewu maa moom damaa ñëw pour duma ci ko ndax parce que combat bi daa am lu tax quoi daa am fu ma fekk moo tax. non parce que daa am ko jëloon avance bi delloo moom muy jaay waane di ko jël. waaw mais du pour du pour booy yi nii lu ma liggéey du pour booy yi man maa delloo avance bi. man maa delloo avance ku delloo avance bi léegi dina bëree la huit ku delloo avance bi dina bëree la huit ku delloo avance bi dina bëree la huit déggoo ma de la neuf sax laa wax boo ma si dugalee beneen journée ma bëre wallaahi azim xale laa yow xam nga mu bu baax. mato mato mato fii sa ama mënut a delloo avance bi xamul tax ndax ko na ma yow tëddati waa ñi nga xam ne moom moo génn moom moo génn kii mooy bëree la huit incha allah waaw kii laa la wax kii mer boobu noonu laay faj ci moom moom mii mer boobu laay faj. Sarr Mokal dégg nga ma kii lam la la laminam la doy wax te su wax doo li ma wax nii la wax ay daa ma ko jël avance am moo ma ko wax léegi. bàyyi ma ko sa xel. kii li laa seqoon ak moom. kon moom ma rase ko moom jàpp ko daan ko man daam daam si lu mu jugee sax ma quoi bor la amee bor. loolu demee nag. nee na moom bor la yoreel waa koñ ba bor dafa war a fay. tamit déggoo ma ma daa am lu ma tàmmal sama waa ba pare te loolu noonu du deñ incha allah ci kàttanu yàlla loolu du deñ le huit noo fas yéene dindi le huit noo fas yéene jëflante ak moom lu bees taax la ñuy indi arène bi heure bu ma fi dugg lu bees laay indaale xale bu ndaw moom mooy ñëw duy stade ba mu fees macha allah man maa ñëw di duy stade bi incha allah dama koy jàpp du ma ko daan ko du bëre ki déggoo ma wax la mën wax kon lamb ji wax la wax kii bu ñu ah. loxo derge ah. maa ngi fi fii ko mën naa am nga mu ko ne teral daan ko ki liggéeyul damay tëdd di nelaw te doo ma daan man déggoo ma de say morom wax nañ ko man damay tëdd di nelaw te mbër du ma daan fii fii maay borom sama toolu maam la fii samay toolu maam la dafa bay dara fii samay toolu maam la maa ñëw bay yóbbu wala dégg wax ci yaa ko ji yow fii maa ñëw bay lu ñuy ji ji nañ ko bu yàgg moo tax ma ne lu ñuy ji ba nga ji ba mu ñor ma ñëw jël sama seer yàb la bu yóbbu doo dara yow fii da nga fee mën a jël dara maa la mën maa la doole fii da nga fee mën a jël dara baax fii da nga mën a jël dara <laughs> si woon na xaw a sax jaamar mu ji ba bëgg eh. ko yàq wi nag bëgg ko yóbbu force nag force ma ko bu doole ki boo xoolee ah, sa tool bi ñàkk ko sa tool bi ñàkk ko du ma koy ñàkk noonu laa koy bàyyee ah dafay dugg de déggoo ma de dugg force yóbbu ko kii doo si mën dara kii déggoo ma de ñu newul dugg ak man nekkul benn yow ñu ma bëreeg ñoo gën a diis fuuf ñu ma bëreeg ñoo gën a diis fuuf ñoo gën a metti fuuf nañ mépp doole ñoo gën a diis jàppee mu jeex gaynde su ma la jàppee mu jeex saa teel sa loxo su ma la nee teral mu jeex teel sa loxo teel sa loxo teel sa loxo loolu déggoo de bu laal bu laal bu ko ok mi ngi noonu ah léegi ku wax lii wax la ca des ah mi ngi noonu Maodo amul problème mi ngi noonu Ouzin Production wax naa ne saa yi wootee rek saa yi wootee réew mu yëngu Ouzin euh, Production le promoteur numéro 2 léegi tey yéen ñaar kenn ku nekk yaa ngi sol sponsor te tey sponsor bi ngeen sool tey moo tax laa làmb ji maanaam muy Tampico la ngeen wax ci sponsor bi Katrina Tampico ah ñu moom ñu moom wax dëgg fa ne yàlla la leen la leen sas ñëw jàpp jàpp nañu si combat bi loolu rek leen leen leen sas nañ ñoom seen seen yére ñoo koy sol xam nga fu ne la ñoom di ko sol su ma dem dine mu laa sol di ko yóbbu kon ñoom dañoo jot ñu ñëw ma ñu door si lamb jëluñu ay bëri tike ma ngi naan ma ngi naan moom mel ne ko chaque jour laa ngi naan amul xaalis moo tax waaw amul xaalis ah. amul xaalis moo du ma naan chaque <laughs> boo xam naa ne moom wax dëgg fa neex moom loo sonu sonu boo xam naa ne toog féex laa euh, Fils de Ama tey nga ñëw sol li nga xam ne moom mooy king boisson muy Tampico euh, tey looy wax ci sponsor bi ba tey ak beneen combat muy combat boo xam si nii combat espoir la combat xale mais ñaar adversaire dafa mel dañoo teel a ñemante ñoom mel ni saa yaraax ak Babacar Xuma dañoo ñëw rek mayante wuñ dara fii de Jonwaar ma nuyu la. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay. waaw maa ngi nuyu ñëpp di jégal ñëpp ah di nuyu sama xarit yi ma àndal maa ngi siyaar bu baax gis nga waaj nga gis ne day sonn si man billaay sax bi damay yóbbu matinal may dem di entraîné kii moom aw ma fayam quoi ñëpp samay gaañ lañ maa ngi siyaar ñëpp quoi yaa tudd nan nga ne fils de Dionewar fils de Dionewar waaw ok mbër nuyu naa la fay nañ la bàyyi la nga nuyoo ginnaaw bu ñu sant yàlla jullu seen te bi sant ñaari waajur maa ngi sant sama waajur ma àndal si te nuyu waa jàmm gën ñëpp di leen woo ñëpp si combat waa Alaaji Paate Kër Masar waaw bu bis ba rek ñu ñëw defaral saa. yaa tudd nan nga ne. Caatu Jek Saaw lay wuyoo. Caatu Jek Saaw ok Caatu Jek Saaw lan moo la dugal ci fils de Dione Waar mii. kii. <laughs> jégal jégal fils de Dione Waar sama yoon sax. ah dama koy jël rek defaral dem sama yoon. da nga koy jël sama bët teguma ko si kii. si foo ko teg yow sa bët. jàll na. ah ñoo ngi si roi des arènes ba. ok fils de Dione Waar dégg nga li mu wax de. kii soo gisee daanoo ko damaa jàppul ngeen bi. déggu ma kii soo gisee daanoo ko damaa jàppul ngeen ki maa ko mën fuuf billaa wallaay oh, ah yow fils de Dione Waar li nga wax yomb na de. maa ko mën fuuf ki moom moroom sax. kon da ngay bëgg may liggéey du pour moom ah billaahi. li nga liggéey. waaw pour moom. ah loo bëgg wax foofu. maa ko mën. dégg nga li wax nee li mu liggéey du pour yow te moo la mën. naa ko bàyyi mu jàpp ngeen ma. soo koy defaral. moom mii nga bàyyi ko mu jàpp ngeen ma. naa ko jàng loolu na ko moom nee na bu jàppee làmb. ko jàngal bëre incha allah. le huit. jàmm gën lañ dëkk. doomu alaaji faare bi. sa diggante ak moom lan nga fas yéene bëreeg moom bu suur baa da ngay xeex ak moom ci xeex wala da ngay jëflante moom ci wàllu bëri. bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko. dégg nga boo xeexee mu duma la boo bëree mu daan te nee na sax day may jàpp. kii doole doole laa koy daanee. doole mooy lan doole. ma jaay doole daan kii maa ko mën foofu kii màgget la. koo mën a ëpp doole yu ne mu naan da jaay doole yu dijji laa xëy dégg ma dijji dëgg moo dijji. Ah. wala kan moo dijji si mbéy buñ si mbéy ko dina liggéey benn voyage laa koy def billaahi kii bu taxee duñ bëri minute waaye ni nga xool naan benn voyage nga koy def yu ne doo waaw baax na ba gis ko rek ba gis ko de kan day dem ardo dina naani sooba doyal ah yow kay a xeex ak laa bëgg man loolu laa bëgg mu ñëw xeex ak man mbaacum gerte waaw loolu laa bëgg man dama dama bàyyi sama yite yëpp pour làmb nekkul kii nii mooy tax ma ragal wala ñu ñëw ma ñëw bés arène fii nii di bañ yenn yi moo ko def kii doole laa ko jaay daan ko war foos maa ko mën fuuf bii mooy sama premier combat. bii mooy sa premier combat bii mooy sa ñaari combat. bii mooy sa deuxième gis nga nag kii. Ah. moo la jiitu fii de. dara maa sóoraale nga loolu man tamit damay mbapat ji damay dem ay mbapat. Ah. di bëre foofu. xam la rek yëpp benn bëri la rek. bëri la waaw. mais fii dóor la ndax ku daan lañu wax. dóor dóor waaw man ragal ma dóor. Ah. billaahi te nee na salaamaaleykum xanaa xoolal sama kanam damaa foo. jàmbaar bu bis baa moom day taxaw koo ko xool xam ne jàmbaar la combat bi yaay dirige wala mooy dirige. non bu taxawee rek mu neex. <laughs> moom bu mu def dara. na na taxaw xaar rek. na taxaw xaar rek. nga xam ne maa moom ñu quoi. di siyaar waa Jonwaar yëpp nag. den wax ne seen doom am na combat ñu ñëw jàpp si. ndax sama combat bee yàqoon ni mu doon woo tout le temps naa ma affaire nu fa demee noonu. man njëkkoon naa am combat le 3 février. ok dafa yàq woon quoi. waaw bii nag moom fexe leen ba mu yàqu nag le 8 ñëw na ba pare. du yàqoo si man. Ah. billaahi amul may ragal. du kini kini ini ni ni nii nii mooy war a jaaxal fa gëna a ndaw billaa wallahi taala mais laajal ni nan ma ki ñu ngi woo waa Casamance ba ha ba ha ba ha ba wa sor wa Kanjala tilen wa binjona balingur di woo waa Diamaguène wa Alaaji pare bu ba ha ba ñu ñoo kita ci combat bi taxu ñoo sax juk yow mi na woo waa Januar ma woo waa Casamance Januar bu mu wu ma fa. Januar. Mhm. Januar nag mooy borom nag. ba bés ba. dégg nga de salaamaaleykum woo waa Casamance. doo mënul nekk te xaw ma leen fa. te xaw ma leen fa doo mënul nekk. nga xam ne man tout le temps maa ngi foofu noonu di siyaar caat caat booy bambara. waaw billa wala bu mu nekkoon foofu ak RTS. dañu doon jàppale entraînement ndox ndox lu ñu bëgg quoi. kooku noonu ñoom RTS ak ñoom di siyaar sama kii nag Boubacar mu ngi bay Espagne kooku de si man ñu daan ñoon ñuy si man tout à dañ may woo naan affaire nu fa demee nu fa demee noonu mais nekkul booy bii nii moom may téye tey euh, lamb ji bu amee waaw d'accord ok léegi léegi lamb ji bu amee sponsor bi moo tax muy Tampico ak ñi nga xam ñoom ñoo jàppale Ouzin production lan ngay wax sponsor bi waaw billaay la nga Ouzin moom ku baax la quoi waaw billaay waaw Ouzin production ku baax la quoi Tampico da ngay naan Tampico waaw kontaan si ñoom rek ah. billaay bilaay tey lamb ju amee tampiko moo si jàpp bu baax baax ba lamb ji mën a am. waaw dëgg la dëgg la kon dee leen jënd tampiko di ko naan. bilaay loolu la ñuy def sax. am na gases am na boo xam suñu secret. waaw waaw macha allah. Hmm, ok ok lay wax ci sponsor bi. waaw Ouzin ñun amuñu lu sant ko di ko gërëm ndaxte lu jafe mu ngi koy def di génne booy ñu si bëri am nañ problème combat mais mu ngi leen di génne wax dëgg yàlla loolu amuñu lu ñu ciy def lu dul di ko ñaanal jàmm ak salaam. mu continué nag. Tampico bi loo ci wax tamit ñu leen di sant bu baax di ko gërëm moom laa doon naan soogay ñëw sax. nga naan ah si yoon moom laa doon naan it sax waaw. sa waaye nee na bi mu ñëw Tampico la naan moo tax mu ñëw rek. non nan naan loolu man daal maa ngi si ceeb bi. xam nga dañu bu du may doole kii si ceeb bi la rek te koy jaay doole daan ko soos. waaw ngeen man damaa xëy ah damaa xëy ndékki ba suur damaa ndékki ba suur laal sama Tampico moo tax waaw du nuyu Moussa bu baax a baax a baax léegi ñu bàyyi la nga woote waa Dionewar li ko wër waaw maa ngi woo fogole junor me xoyar na combat fe nungar ma ko inteni i ino nje ka refe na nuno bo mo ngar nu na combat ne tigi ndam ko ke mbiyani ki ana faji ndara nga wax degg nako nak de waaw garaawul acha wotel wa ñun ñoy wo ñep rek di wo ñep ñu ñu wara jappale ñu ñew japp ci te xamna sen dom sen rak seen lepp moy mo am lamb na ñew japp ci le 8 inshallah ñew defaral ko di nuyu nak sama doom day sita bu baaxa baaxa baaxa baax tarki nda bi tamit ñong koy wo bu baax sita waaw ñoo ngi koy woo bu baax a baax a baax suñu mag la suñu papa la suñu lépp la waaw bu bés ba incha allah waaw ah, ñun di woo waa mbokk Casamance yi rek ñun jigéen soor la ñu dëkk ñu ngi woo waa Casamance bu baax di woo waa Bignona waa Kanjalan waa tilen waaw ñëpp ñu ngi leen di woo Casamance lu ko wër lépp voilà. jërëjëf mi ngi noonu combat bi mooy dox si diggante ki nga xam ne mooy. Ah, waaw di siyaas sama capitaine Dompi. Dompi sama capitaine la quoi maa ngi koy ñaanal jàmm ak Alpha Jonouar ak ñoom pli ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaar bu baax di siyaar Boubacar kooku mention spécial. donc le la Production le promoteur numéro 2 le promoteur numéro 2 <laughs> non waaye yow dama yow da ngaa bëri bay duma daanaa